فوق البكاء وعلى سادات الأموات أبقي الأراضي عليهم كالسماوات فوق البكاء وعلى ñu sant yàlla julli ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal xalif général di Mouride Serigne Mountakha Mbacké yal na ko fi yàlla yàggal lool te wér te lim bëgg a liggéeyal Serigne Touba mu liggéeyal ko ci barke xaadimul Moustapha man Serigne Abdoul Aziz Mbacke ibnu Serigne Abdou Koumba Suuna Lay ibnu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara maa leen di jot kàddu yi sëriñ Abdou Koumba Suuna Lay ñu gën koo xam ci Serigne Abdoulahi Mbacke. di xalifatul guy mbind maa ngi koy ñaanal yàlla guddalu fanam ba lim bëgg liggéeyal Serigne Touba ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara lépp mu liggéey ko Serigne Abdou Mbacke nag sëriñ Mouhamadou Lamine Bara mi ngi ko tuddee Serigne Abdoulahi Mbacke borom dër bi Serigne Bara bi mu génnee àdduna en 1936 fekk na njabootu Serigne Bara yi ñoom ñëpp ginnaaw Serigne Bara leen juddu. Serigne Abdou Koumba Suuna mu ngi judd 1933 à Mbacke Kajoor loolu Serigne Sidi Maxtaar toog na bi nga xamee ne yàlla suñu borom def na Serigne Serigne Abdou Serigne Saliou moo nekkoon Serignam yàlla sunu borom def na bi Serigne Saliou nelawee mu jëlu njabootam fekku ko ca kër gële man ca laa bokkoon mu ne ko man mënumaa ñàkk cheikhul murabbi dama laa bëgg a jébbal sama bopp ak sama waa kër bi mu waxee li mu war a wax lépp Serigne Sidi Maxtaar da ne ab Abdou ñoo bokk ndey ak baay ne ko xanaa xamoo ne bi sëñ Baara bi sëñ Baara nelawee ñi doon liggéeyal Serigne Baara sa waajur wu jigéen ca la bokk ak sama waajur wu jigéen mu boole leen ak ma code kase loolu Serigne Sidi Maxtaar leeral na ko sëriñ Abdou Koumba Suuna mu nungul ko jébbal ga Serigne Abdou Koumba Suuna di dox loolu ci digganteem ak magam Cheikh Sidi Maxtaar. lépp lu mu amit jébbal ko Cheikh Sidi Maxtaar lépp lu muy defit jébbal ko Cheikh Sidi Maxtaar ba loola amee Serigne Abdou Kumba Suuna li ko indi ci loxo kër Serigne Mbacke Madina laa leen doon leeral Serigne Baara bi mu nelawee en 1936 Serigne Modou Baara di xalifa Serigne Baara moom moo jël Serigne Abdou Kumba Suuna boole ko Serigne ñaan Jóob ñu waral ko ci fas mu ne dem leen jox ko Serigne Abdoulahi mbàkke borom dër bi mën na ko tudde biñ ko waralee ci fas yóbbu ko ci sëñ Abdoulaye Mbacke borom dër bi biñ ñëwee dañoo juyoo ñu laaj sëñ Abdou borom dër bi ñu ne dafa génn fekk na sëñ Abdou borom dër bi bu jàngaan alxuraan ba yoor-yoor day dox lu tollu ñaari kilomètre soo ko dellusiwaat ci këram biñ ñëwee sëñ Abdou borom kër gi ganale ko fa waxtaan ak moom bi mu ñëwee sëñ Abdou borom dër bi joxaat ko suñu ñaan jóob nekkoon ko ko yóbbu kër suñu ñaan mu jàngi alxuraan. sëñ Abdou dem kër sëñ ñaan Jóob jàng fa alxuraan wattu alxuraan ba mokkal alxuraan ba mu fa paree sëñ Abdou borom de sëñ Abdoulahi Mbàkke dafa amoon magam ju naan soxna maam xëri Mbàkke ñoo bokk ndey ak baay ak soxna Xadi Mbàkke ñoom ñett ñooñu ñoo bokk ndey ak baay soxna Kumba Suuna Lay mooy seen waajuru jigéen bi sëñ bi jàngee alxuraan ba pare mu ñëw daaru xuddoos li ko indi daaru xuddoos laa leen di leeral mu fekk soxna maam xëri mbàkke daaru xuddoos bi mu ko fa fekkee soxna maam xëri mbàkke sëriñ Aliou mbàkke moom sëriñ Moodu Moustapha moo ko takkoon soxna moo nekkoon aawoon sëñ sëñ Moodu Moustapha moo ko takkoon mu am ci ak moom sëñ Aliou am ci ak moom benn doom ju naan sëriñ Basiru mbàkke moo nekkoon taawu sëriñ Aliou mbàkke sëriñ Abdou xamul ku dul soxna maam xëri mbàkke ndax waajur mu jigéen bi mu liggéeyalee Serigne Baara ba pare daanaka ci la génnee àdduna ndax sëñ bi dafa teel a ñàkk waajur wu jigéen teel a ñàkk waajur wu góor bi loolu amee xamul lu dul soxna maam Xari Mbàkke nekk ca moom ba sëñ Modou Baara yëg loolu yëkkati jox ko Serigne Mbàkke Madina bi mu ko joxee Serigne Mbàkke Madina ndax soxna maam Xari ma nga féete Daaru Xuddoo sëñ Aliou ko yor sëñ Mbàkke Madina ñëw. jël ko en 1946 yóbbu ko dëkk bu naan Kër Serigne Mbacke Madina mi ngi ci watu xombal digganteem ma xombal 7 kilomètres la bi mu fa ñëwee ñu julli timis ba pare mu woolu Serigne ab bën dëkk nga ci bëgg nekk ma yóbbu la fa nga toogal ma fa bi mu waxee loolu Serigne Abdou ne ko man de Mbacke amuma lenn lu may taamu yaay sama mag di sama kilifa fépp foo ma teg baax na bi ñu jullee timis ba pare sëñ Mbacke Madina rëdd jàkka ji daan ne ko abdu dama bëgg nga nekkal na fii ci kër sëñ Mbacke Madina nga toogal ma fi ndax ke ku ne mënoo fu ne nga nekk fa loolu yàlla suñu borom rek moo ko man nekkal ma fii kër sëñ Mbacke màddina bi sëñ Abdou ne ko waaye Mbacke li ma jaaxal dama dul toog ndax jamono yooyu sëñ bi dadul woon toog sëñ Mbacke Madina ne gees na ko sëñ bi di nga toog kon moo waral sëñ bi nekkal ko daara ja xam 1946 ba léegi ni si muy juróom-ñaar fukki at ak nangam sëriñ Abdou nag lenn rek la xam luy jaamu yàlla liggéeyal sëriñ Touba yar ak njabootam ci siraatal mustaqim sëriñ abdu lépp lu mu amit sëriñ Touba la kër sëriñ Touba ñi nga xam ne waa kër sëriñ Touba la nit ñu baax ñépp dañuy ñëw ci moom moo sëriñ mun taxaa mii ñoo jàngandoo woon nekkandoo Mbul Kayar ak Serigne Mbacke Soxna Lo ak Serigne Xaadim Mbacke moom Serigne Mourou Moustapha ñoo nekkandoo woon Mbul Kayar moom Serigne Mountakha ñoo bokkoon benn lal ndax jamono yooyu ñaar ñu ne akub lal ñoo nekkandoo woon njaareem di jàng xam-xam ñu nekk ay wëllëre ay xarit ñoom ñaar moom Serigne Mountakha Serigne Abdou Mbacke féete kër Serigne Mbacke nekk fa. nekk fa ba sëñ Mbàkke Madina nelaw en 1985 bi mu nelawee diggante sëñ Mbàkke màddina ak sëñ Abdou Lahad ñëpp xam ni jaxasoo woon bi mu demee seeti sëñ Abdou Lahad Mbàkke sëñ Abdou Lahad da ko baa sëñ Abdou fa la sëriñ tegoon di nga fa ne ba tey mu ko nekk fa lépp dina la fa fekk sëñ Abdou di doxal baatum digal boobu di ko wéyal mu féete kër sëñ Mbàkke Madina di jaamu yàlla di jaamu yàlla nekk fa ba tey dogal bii ñëw am ba mu amee nga xam ne njabootu Cheikh Mouhamadou Lamine Baara gépp sëriñ Abdou Mbacke moo ci des bi mu amee sëriñ Abdou Koumba Suuna nekk xalifa Cheikh Mouhamadou Lamine Baara ñëw ci te sëriñ Abdou Koumba Suuna mag la yaram wi mayatu ko waaye sa cër bu fekkee ne yàlla suñ borom tànnal na ko ba jox la ko di nga ci ñëw fas yéene cee toog moo xam da ngay nekk kër sëñ Mbacke màddina moo xam léeg-léeg da ngay nekk Touba Guy mind moo xam da ngay nekk Mbacke Kajoor moo xam da ngay nekk feneen ak feneen moo waral loolu sëriñ Abdoulahi Mbacke di ko def ba loolu amee Serigne sëriñ Serigne Jili Mati lay woo na ma waxtaan naa man wax na ma dénkaan yu rafet leen seen waajur wa dénkoon ci Cheikh Abdoulahi Mbacke Serigne Jili Mati lay woo na ma wax ma la ko seen waajur góor wa waxoon ci digganteem ak Serigne Abdoulahi Mbacke. Serigne Abdou Koumba Suuna nag noonu la deme ak Cheikh Mouhamadou Lamine Baara daal di wër ba tikku nag bokk ak Serigne Cheikh corom Mbàkke moom Cheikh Mouhamadou Lamine Baara kër kër kër waaju kër jigéen ñi Serigne Abdou Suuna ak Serigne Cheikh Coro Mbàkke seen ñaari maam yi ñoo bokk ndey ak baay ndax maam Modou Fatma Tall mi nga xam ne mooy seen maam dafa tëdd ba guddi. gént sëriñ Touba di ko jiite ak julli bi mu tëddee ba guddi Serigne Touba di ko jiite ak julli mu daal di laaj Serigne Touba fu mu ne ñu ne ko mi ngi Mbàkke Kajoor mu dem Mbàkke Kajoor ñu ne ko Serigne Touba dem nañ njaareem bi mu ba bi mu ba Mbàkke Kajoor ñu ne ko Serigne dem na fa waaye doomam ju naan Cheikh Mouhamadou la mi ngi fi mu ne naa ko ziar bala maa dem. bi maam Modou Fatma Tall ne asalaamaaleykum dugg ci néeg bi sëñ Baara ne ko kooku du Fatma Modou Fatma Tall dey suñu borom xamal na ma. fa nga nekkoon du sëb cër fii mooy sëb cër mu yuuxu daanu lu ci Serigne Touba Serigne Touba euh, Serigne Serigne Baara sëriñ Baara bëgg koo seexal mu ne ko samay mbir dencal ma ko ba ëllëg at ma del si Serigne Baara Mbàkke jóge Mbàkke Kajoor di ñëw siiwal taal mu jox ko bi mu ñëwee Serigne Serigne Serigne maam Modou Fatma Taal jox ko soxna Kumba Suuna lay jox ko ko àddiye boole koo ko fas mu am ci moom sëriñ Abdoulahi Mbàkke soxna maam Xëri Mbàkke soxna Faati Mbàkke bi at ma dellusiwaatee mu dellusiwaat fa mu ñëw jox ko mu jox ko waajuru Serigne Cheikh Coro Mbacke mu jur ca moom am ak moom Serigne Cheikh Coro Mbacke mu jur Serigne basiiru Coro sëñ Basirou Coro bokk ak sëñ ñaari maam yi bokk ndey ak baay loolu mooy mbokk goo xam ne nii Serigne Basirou Coro taxawe na ko jàpp na ko xam na kan mooy sëñ Abdou Serigne Abdoulahi Mbacke nag ni nga xam ne defoon na ko ak i magam moom laa leen bëgg leeral. sëriñ Modou Baara moo ko doxuk jàng sëriñ Modou Baara bi mu tàggoo bay dem Màkka jamono yooyu yàgg na bi muy dem jaar na ba gisanteeg sëriñ Abdoulahi Mbàkke kere bi nga xamee ne dem na di tàggoo bi mu demee ba ñëw Dakar ba génn àdduna en 1952 la nga xam ne yoroon na ko muy ay carte d'identité ak pièce am ak léppam ak turu yàlla yam doon yor yépp sëriñ Abdoulahi Mbàkke lañ ko joxoon moo ko téye woon ba ndigi ni si mi moom Serigne Abdou Aziz Baara Mbàkke moom lañ ma tudde muy magam ju baax yoo xam ne nii bi mu demee bay dagg guy mind ay kër bi mu demee da leen a dendale mook Serigne Cheikh Thioro Mbàkke kër Serigne Abdoulahi Mbàkke foofu la nekkoon Serigne Abdou Aziz Mbàkke di dox loolu ci digganteem ak Serigne Abdou Kumba Suuna Serigne Abdou Kumba Suuna moo ma nettali ne ma Serigne Sidi Maxtaar bis ba ma koy xame mooy Serigne Abdou Laatoum Serigne Touba dafa jël am xar woo sëriñ Abdou Aziz Baara ne ko képp ku Cheikh Mouhamadou Lamine Baara jur na nekk ci xarma bis booba ñu woo waa kër sëñ Baara yépp nee na sëriñ Sidi Maxtaar moo mujj ñëw jóge daar mus si doomi njabootu sëñ Baara gépp lekk ca xarma saafante bis boobu la xamanteeg sëriñ Sidi Maxtaar ndax sëñ Baara bi mu nelawee ak njabootam ñu bari dañoo tas boo xoolee ñi nekk Dakar ñi nekk fii ñi nekk fii sëñ Abdou nag baat boobu ko sëñ Mbàkke dina waxoon toog fi Abdou lépp dina la fi fekk sëñ Abdou laat Mbàkke waxaat ko ko relation yi mu amoon ak doomi Sëriñ Tuubaa dinaa leen ko wax ndax sëñ Modou Moustapha na ko lu nit di am ci cër di ko am Mbàkke yaa ngi daaru Xuddoos digganteem ak sëñ Fallou Mbàkke relation yu yéeme amoon na ca digganteem ak sëriñ Basiiru Mbàkke dadaa seet si sëriñ Basiiru sëñ Basiiru di ko tëj ci néeg di ko ganalee ñaari weer sëñ Muntaxa xam na loolu fekk na ko ba sëñ Abdou nee na bu ma masaan dem ci mun tax ci sëñ Basiiru bu ma demee bay ñibbisi ba di ko tàggu danaan ma waa ji Abdou foo war a dëkk booy dem doo tàggoo waa ji Abdou foo war a dëkk booy dem doo tàggoo nee na ba baat boobu sëñ Basiiroo ko daa wax relation yooyu amoon na ko digganteem ak sëñ Saaliw ndax sëñ Saaliw bi sëñ Mbàkke Madina nelawee sëñ Saaliw nekkoon sëriñam bi sëñ Saaliw nelawee sëñ Sidi Maxtaar moo nekkoon sëriñam relation yooyu bi mu ko amoon ak sëñ Saaliw yàgg na waaye moom sëñ du Khadre nag seen relation dafa jéggi woon day wax ndax nee na sëñ daam atta moo ko présenté woon sëriñ Abdou Khadre waaye sëñ Abdou ba mu ñëwee nee na la ma fas yéente fa la ma fas yéente woon jaayanteeg sëñ Abdou Khadre doonu woon ci àdduna te nanguloon na ma ko la li ma ko ñaanoon mayoon na ma ko fan jëm la ëllëg la yowmal xiyaam sëñ du Khadre da ko bàyyi woon xel ba ku mësaane jóge bawal boo nee ko bawal laa jóge mu ne ko ana Abdou Mbàkke ndax sëñ bi dafa am lu mu jaayante woon ak moom du mbirum àdduna sëñ bi nag àdduna taxu ko jóg sëñ bi mag la doomam lii du seen i mbir ay vidéo ñun yaruñu ñu ci xamuñu ko ñun jaamu yàlla lan xam te Serigne Touba nee na jaamu yàlla gu yàlla nangu mooy lekk lu lew te sëñ Abdou am na doom yoo xam ne nii ay cadre lan jàng nan ba fi mu toll mën nañoo yoru réew mi ñee ngi Canada ñee ngi États-Unis ñee ngi France ñëpp ay cadre lan ngir bëgg a dunde lu lew jël seen bopp teg ko ci yoonu siraatal mustaqim tudde na sëñ Abo Madiyaana doom ndax relation ak sëñ Abo sëñ Abo da koo bindoon ba barki dem bi may xooli këyitam bataaxal ba ko sëñ Abo bindoon sëñ Abdou dane ma àdduna du dara ne ma bataaxal bii sëñ abu moom ko bindoon mu ne man la son bu mbàkkee Touba yëmbal am ku mu fa yebaloon jox ko ab bataaxal am lu mu doon sàkku ci sëñ Abdou te ñëpp xam ne sëriñ abu Madiyaane wàllu kamal la woon waaye njabootu gi réeroo daanaa ko seeti di ko fekk Touba sëñ baara sëñ Abdou daal di koy reetaan daal ko mbàkke li nga nekk moo dàq xalifab sëñ baara di def ak a dindi te ñépp xamoon ne sëñ Abou Madiana wàlliyu kamaa la diggante relation boobu moo moog sëriñ ay Aïssa Mbàkke loolu amoon na ci bu baax a baax relation digganteem ak sëñ Bass Khoudia Dieng ak yeneen ak yeneen loolu amoon na ci am pénc bu xëyee jàmm nekk fa mag mu maandu ma nga fa am pénc bu xëyee jàmm nekk fa mag mu maandu ma nga fa am pénc bu xëyee jàmm nekk fa mag mu maandu ma nga fa kon tooñ ngeen xaadim saar xaadim saar sëriñ fàllu saar mooy baayam soxna maam xëri mbàkke mooy yaayam sëriñ abdu kumba suuna mooy nijaayam ndax sëñ aliou mbàkke moo yoroon soxna maam xëri bi ko sëñ fàllu saar yore sëñ usmaan njaay moo ko yor kon soxna soxna maam Xari Mbàkke kër si kër sëñ Mourou Moustapha la xam sëñ Abdou nag 1952 kër sëriñ Mbàkke Madina la ko sëñ Mbàkke Madina waxoon baat boobu lay doxal ñoom ay gone lan ñi fi des ay gone lan xamuñu dara ci sëñ Baara la ma ca xam xamuñu ko ca ay gone ñoo fi des relation ban war a am ak sëñ Abdou mënuñu koo am ndax sëñ Abdou fam toog fa la toog te ñoom li ñuy dund muy affaire lobby ay affaire àdduna alalu àdduna jaay nañ seen ngor ñoom ñépp ndax damaa déggoon sëñ bi wax ma baat boo xam ne nii baat bu yéeme la nee na nit ci biirum ndeyam lay rekke bu ko waajuram wanee aw lor ba dem ba nekk nit bu demee ba nekk nit boobaa nee na xiif ak regg mooy njëw ba ñaar yooyu bu ci njëkk a ñëw beneen ba du ñëw te am na ñoo xam ne nii guy mind muy Cheikh Baara Laar Cheikh Baara Mati Lay Cheikh Coro Mbàkke ak ñeneen ñu mel ñoom yàq nañ yoonu Serigne Touba bi waaye yàquñu ko sax ndax mënuñu koo yàq seen bopp lañ yàq ñooñu réeguñu ci seen biiri ndey ngir alalu àdduna ngir koom-koomu àdduna relation bi am ak gouvernement bi bañ mu deñ loolu daray àdduna jëru ko Serigne Touba dane boo bokkee ci moom te ne ci li la war te ne ci li la war la wax bën bënu dex laa lay defal lan mooy bën bënub dex mooy muy ball muy ñëw ngay tànq te du jeex te doo xam fu muy jóge man Abdoul Aziz maa ngi sant yàlla bu baax a baax ñoom ñoo gisuma lu man lu ma mënut te fa ma toog fa laa te yàlla suñu borom moo ma koy defal àdduna bi nag day loo xam ne nii dinaa leen wax yéen da ngeen di gone xool leen seenu toogin sëriñ Abdou du seen moroom bu ngeen di wax doomi sëriñ Abdou ngeen di waxal sëñ Abdou xajut ci yéen man Abdoul Aziz Mbacke dinaa leen xamal lenn duma saaga duma wax lu bon duma wax lu ñaaw ndax dañ nit koo xam ne nii dangay ñaan yàlla di nangu war a wax lu ñaaw war wax lu bon te duma saaga waaye mbir mi ngeen def fu mu leen àgg rek àgg na ma fu ko raw dama leen di wax ngeen dal te teelu yéen kilifa yi nga xam ne yéen a nekk Touba ak magi taalibe yi ngeen saytuwaat Touba xoolaat wax ak ñoom lu ngeen ci bañu man Abdoul Aziz Mbacké bañu ma ko ci yoonu sëñ Touba nag bëggumaa def dara loo xam ne nii lu koy gàttal xalaatuma ko ci àdduna la ma sëñ bi yare woon wax ma ko ma nekk ca man maa jege sëñ bi lu bari xam naa ko lu baree bari xam naa ko ci histoire sëñ Baara lu bari xam naa ko ci histoire sëñ Touba waaye ñun waa kër sëñ bi kumba suuna lii du suñuy mbir lan mooy suñuy mbir liggéey jaamu yàlla te jaamu yàlla gu yàlla nangu mooy lekk lu lew te ñii ngeen di gis ñii ñii ñépp ngeen di lekk lekkuñu lu lew dañuy sonal seen bopp boo dee julli te lekkoo lu lew da ngay sonal sa bopp juróomi waxtu yi da ngay sonal sa bopp ndax yàlla du ko nangu yéen murid yi yéen taalibe yi Serigne Touba yi yéewu leen ci àdduna taalibe Serigne Touba mu sant Faal mu sant Jóob mu sant Njaay mu sant Mbàkke sant wu sant ki gën a jege sëñ Tuubaa mooy ki gën a ragal yàlla képp koo gis mu ragal yàlla mu sant njaay te boo ko mënee jébbal sa bopp jébbal ko sa bopp ndax sëñ Tuubaa nee na murid yëpp bu ñu leen ci benn saa mu leen ci benn saa martaba boobu sëñ Tuubaa loolu mu am ndax sëñ Tuubaa du loolu sëriñ am may na ko ay doomam ndax ay doomam dañoo bokkoon ca kun fay ca la doom bi sëriñ Tuubaa ya bokkoon bi sëriñ Tuubaa di ñëw sëñ Tuubaa nee na ñoom dañ koo bëgg a bijjanti moo tax sëñ Tuubaa doomoo leen dañ di boroomi cër même sëñ Tuubaa bu leen doomoowul woon bu ñëwee bu la xoolee dinañ xam yow kañ ngay faatu li ne ci yow lépp dinañ ko xam doomi sëñ Tuubaa ko man doomi sëñ Tuubaa yàlla ak yenent bi ca nekk mbirum àdduna waxu ci dara loolu doomu sëñ Tuubaa ko man kon doomu sëñ Tuubaa ku mu bëgg a texeel dina la texeel seetluwaat leen yéen taalibe murid yi xam ne mbir mi fi mu toll jaxasoo na amul Mbàkke laa sa amul Njaay laa sant amul kenn yenent bi sallallahu alayhi wa sallam bañ koy tagg ci jikko lañ ko tagge ak ci ragal yàlla ak yépp yaa ngi dégg fii ku la gën a ragal yàlla moo la gën xool leen ci ñu ngeen di képp ku ngeen di jébbalu mu bëgg leen a bëgg àdduna gën leen a nekk triant yaa ngi dégg bàyyi leen ko fa ak njébbal du ay caaxaan bu ngeen gisee ko sant Njaay di jaamu yàlla aku maanute amul taalu bi dem leen jébbalu ci moom xam ne da leen di ci yoon lu man ci moom bu ngeen faatoo moom du leen fekk si ci yéen seen bàmmeel sëñ Tuubaa mooy ràmm ni ngeen xam loolu waaye nag ba sëñ bay jaxate wooyoon dikk na nee na jamono ngi ñëw woote bi dina bari lool kenn ko ne naan a man a man a man a waaye nee na fu iblis nekk moom la ñuy dooleel ba boo ko gisee defe ni dëgg la nee na nit ñi wuy si nee na ku amul kilifa ak ku tëyi mbokkam ma fay ñëw ñu koy jay naan ko yaa man diw ak yaa man diw mu sos lu seen bi sosul woon kon yéen waa Guy Mbind yéen laay waxal amu leenub yar ay naafeq ngeen ay trian ngeen Cheikh Thioro Mbacke man Abdoul Aziz Koumba Suuna li may wax nii bu amul Serigne Touba yàlla bu maram fekk nga ma station jaar nañ béréb man ak yow station nga ma fekk may raxas sama oto di ko def entretien moo dugg ci jàkk ju julli ba toog nga nuyu ma ne ma ana sëñ bi nu mu def naka yaram wi ñu jàmm sant ma ne ko sëñ bi dara jot ko mi ngi sant yàlla nga am loo ma laaj ni ma xam nga ne bi sëñ Baara Mbàkke nelawee léegi mat na juróom-ñetti fukki at ma ne loolu loolu xamuma ko ndax xam naa ko maa la ko gën a xam waaye dama lay ne tekk di la déglu bi nga ma waxee loolu daane ma sëñ Baara bàyyiwu fi doom joo xam ne nii gone la daane ma Sëñ Abdou gàtt gàtt am na juróom-ñetti fukk at ak juróom-benn du ma la wax ati Sëñ Abdou ndax xam naa ko ndax fii ma toog nii maa ngi kàddaan ci Sëñ Abdou daan na ma sëñ Baara bàyyiwu fi gone nga wax say wax ne ma CRD bi ñoo ngi koy defee Mbàkke Kajoor mercredi la noo def nañ ci ñëw jël sama numéro am na loo xam ne nii duma ko wax du yàq duma jaxase waaye Cheikh Coro Mbàkke nit ku baax nga ne sëtub sëñ Baara nga. di wor aka a tappale kàcc yow doo nit ku baax yow ku la yaakaar mënoo koo dugal àjjana ndax wax lu amul taman lépp lu ma wax barke xaadimul Mustafaa amul lu may ragal ci àdduna yàlla suñ borom rekk laa ragal yàlla rek ci laay wakkirlu yàlla rek laa gëm yàlla mooy maye mooy joxe mooy xañe am lu may ragal ci àdduna Cheikh Coro Mbàkke naafiq ci alxuraan am na saaru naafeq yi yéen a ko moom naafeq nga Cheikh Bara Mati lay naafeq la yàq ngeen Touba di ngeen suur seen xalifa gi ngeen nekkoon seen di Maxtaar nekk ku baax di jàmm yàlla ragal yàlla lépp lu mu am jox na ko Serigne Touba ngeen sonal ko def ay conneries conneries bu nekk bu bu jinne def ngeen ko ba Cheikh Sidi Maxtaar tëj armeel yi daane leen bàqee la bërëb ba mu fa defoon ne bu ma génnee àdduna ni ngeen ma fa denc seenu mbon seenu tappale seeni pexe yoo xam ne ni yàgg ngeen koo laal ngeen jël barab bi indi ko ci digg guy mbind ak Touba gépp def ngeen koy armeer diggu guy mbind ngeen def ko guy mbind moomu leen ko guy mbind ñépp ko bokk sama mbokk sax bu faatu woon sama bàyyi xalif général fi mu toll de eh, kër sëñ baara dinaa fa denc sama nit man moomu leen guy mbind ba xam ku ma naan ma bu fa denc nit te sëñ bi waxu leen ko def ngeen erreur boo xam ne nii xamu leen ko ngeen seen ngir seeni mbir xool leen li ngeen def ngeen jaxase loolu xool leen mi ngeen def te seen Cheikh Sidi Maxtaar yaakaar naa fu denc sëñ Bas Baara denc fa sëñ Modou Aïcha Mbacke war naan faa denc sëñ Sidi Al Maxtaar yaa ngi dégg ndax sëñ di Maxtaar nit ñi dañoo am ci moom yaakaar mu yor yoonu sëñ Tuubaa yor bu rafet rafet doxal ko doxal bu rafet ñu mënoon faa denc moom taalibe murid yi seen xel gën a dal. ndax fépp suufu tuubaa la ndax sëñ Touba suuf tuubaa la njëkk a garanté ne diggante Touba ak àjjana solu daal xaju fi waru fas xaju fi waaye seeni pexe seeni tappale nga jóge ca lal benn plan ne sëñ bi dañoo joxoñoon sëñ Moustapha yaa naafiq waaye lii ngay def barke Serigne Baara man Abdou Aziz maa la ko wax doo ci am na billaahi wallaahi wa taalaahi gàcce nga ciy am te yéen yaa ngi fi maa ngi fi seen jiiri matile yi damaa woo téléphone wax ma relation ba li leen seen bàyyi dénk si ñëpp di kumba suuna waa doom nu mu mën a nekkee nga bëgg ne sëñ bi di leen ko joxoñ ndax sëñ Abdou Aziz Baara bi mu génnee àdduna ndax wax nañ leen joxoñ joxoñ na leen doom ab sët sëñ Sidi Maxtaar loolu amoon na fa ba mu waree toog nekk Daaru Musti te sëñ Bas ma toppoon ci moom xujja jég dafa ñëw jaayante jaayante la def amoon na fa ay fani fani fan waaye loolu lépp jaayante la def waa ko sëñ Baara sëñ Baara yi duñ yàq sëtam yi nga xam ne tey ñoom ñoo bon nekk guy mind ñoom ñépp a bon am na nag ñoo xam ne nii ñu fa ne ñu baax lan am na ñu baax ñu fa ne waaye xaaj bi ñépp dañoo bon ngir alalu àdduna waaye li ngeen am lépp da ngeen koy ñàkk day jeex ndax lu lew ak lu lewul bokkut golo lu mu yor yàq rek la ci xam lii ngeen yor du yàgg ak yéen bu ëllëgee di di ngeen romb nit ñu ñu leen di reetaan ndax li ngeen yor lewut alalu àdduna ngeen topp te xalaat leen ni saa bu ngeen xëyee seen dund ngi wàññeeku du ngeen nit ñu baax lii lépp tooñ ngeen sëñ bi ci ginnaawam mun waxee nga ne sëñ bi nee na moo joxoñoon sëñ Moustapha nee na ku wàcc yoon wi di ko fekk sëñ Sidi Maxtaar dee yàlla moo ko yor dangaa sosol sëñ Sidi Maxtaar dee moom yàlla suñ borom moo ko yor dama lay wax lu wér nga dégg ko ñépp a jàng yàllaay rey yàlla mooy dekkal yaa ngi dégg sosal ngeen sëñ Sidi maxtaan ngeen bëgg intérêt ji ngeen bëgg am ci sëñ Moustapha mu toog fi intérêt jooju ak seen diggante gouvernement bi gëmu leen seen bopp bu ngeen gëmoon seen bopp di ngeen xool ni ngeen di doxee intérêt jooju moo tax ngeen di jàppale sëñ Moustapha sëñ Moustapha nit ku baax la sëñ Moustapha lii du jikkoom Cheikh Baara matt lay nit ku bon la ñoom ñaari bokk ndey baay moo ko ci dugal Cheikh Baara Laat nit ku bon a bon a ngi noonu moo gën a bon kuy mind Cheikh Thioro Mbacke di naafeq di nit ko bon ak ñeneen ñoo xam ne nii mënuma leen a tudd sëñ Moustapha lii xamul dara koo xam ne nii boo nee ko jaaral mu jaar boo nee ko waxal mu wax yaa ngi dégg xamul dara ci àdduna waaye dama leen a bëgg a xamal ne sëñ Abdou na ko moytu sëñ Abdou seen moroom xeexu leen ak sëñ Abdou xam nga kan ngeen xeexal sëñ Mbacke Madina te sëñ Abdou laa lii laay tëje sëñ Tuubaa bu doon ñëw jamono ñëpp ay soppiw toogeem ba mu des sëriñ Mbacke Madina sëñ Mbacke Madina ab cëram ñépp nangaloon nañ ko sëriñ Mbacke Madina rawatina sëñ du Lahad wax ca wax bu rëy ja ca sëñ Abdou Koumba Suuna ne ko toogal lépp dina la fekk wàlliw nag bu nekkee ci suuf sax lay gën a mën a xeex yéen xeexu leen ak sëñ Abdou barke bi Cheikh Mouhamadou lamin Baara sëñ Baara laa lay xamal yéen ñëpp mën naa leen def ci pot man Abdou Aziz Mbacke man rek mën naa ko ndax moyuma yàlla defuma lu naqari yàlla te li may lekk lew na ma man rek mën naa koo defanteeg ñoom waaye yàlla mi nga xam ne mooy àtte dina àtte fii nag dinaa leen ko xamal baati dëgg yii nag laa leen di wax sëriñ Abdoulahi Mbacke ñu tudd ko sëriñ Abdou borom dër bi ibnu Serigne Baara mooy xalifab Serigne Baara man ak taalibe yeeg samay mag ak ñi ne bitim réew ñépp dinañ ñëw ñoo ngi waajal Mbacke Kajoor màggale ko fa ci turu sëriñ Abdou Koumba Suuna xalifab Serigne Baara yéen taalibe yi Serigne Touba yi jug leen ci ngeen xool. man Abdou Aziz ak waa kër sëñ Abdou Kumba Suuna ak bépp taal bi amul lu ñu ciy bañ nit nag dina nelaw nga def say jëf ba laa ko ku romb garab goo romb nga rocc ko di nga rocc garab mu des ci say loxo sëñ Abdou mag la soxlawul dara ci àdduna ku nekk 1946 cim néeg ba tey yi ñu ne 2018 nga nekk ci soxlawoo dara ci àdduna bëggoo dara ci àdduna yow mbirum àdduna waxoo ci dara génnoo télé demoo état demoo fenn fa nga nekk nga nekk lépp di la fa fekk. yaa ngi dégg soxlawul dara ci àdduna nga bëgg koo tey ne damaa koy dama dama koy dama ko dama def lii ci àdduna bi weeje ko toroxal ko yow mënoo toroxal kenn sa bopp ngay weer waaye bu soobee yàlla ak yenent bi dinañ ko jëflanteeg yéen fii Touba kenn moom ko porte parole ak sëñ Bass Abdou Khadir laay waxaat yéen ñëpp laa koy ma si Touba Mbàkke la sant Serigne Touba ko moom da ngeen ànd ko jub ku ci ànd ko jub nit ñi ànd ak yow ku ci ànd ko jub nit ñi bala Touba ñun ñëpp a ko bokk mm, yéen ñëpp nag laa koy waxal nag ni ngeen xam message bi man Abdou Aziz maa leen ko wax ñëpp a bokk Touba ku fi jub nag am taal bi la mag nga doon doxal nga doxal ko ñu ànd ceeg yow waaye ku ko ci defuti dañuy daal ci sa kaw ñëpp a ci yem. ah sëñ Abdou daal ñëw na mi ngi Touba guy mind mbir mi bi mu amee ñëw na tubaa guy mind mi ngi fi yàlla suñu borom def na mi guy mind. ba juróom-ñaari fan yi wees bu bis bi si bi ñëwee dina delluwaat kër sëñ Mbàkke Madina toog fa ñoo ngi waajal Mbàkke Kajoor jiital ci Sëriñ Basiiru Coro muy suñ mag di suñ suñ lépp ñoo ngi ko ciy jiital di leen xaar di waajal Mbàkke Kajoor incha allah rabbi dinañ teel a dem Mbàkke Kajoor lan war a def lépp dinañ ko def ci kàddu Sëriñ Abdou Kumba Suuna Lay incha allah jox nan bépp taalibe nga waajal Mbàkke Kajoor sëñ Abdou képp koo xam ne nii soxla na ko na ko fekk kër Sëriñ Mbàkke Madina ma nga fa dem noppalu ji ndax yaram wi dafa xaw a diis day dem toog foofa wasalaam jërëjëf.